ngeen déggee loolu xam ni la daan xew xewatina kan moo ko wootee jàmbari Khadim Lo gaydel borom daam ji Baye As Ngom Zikroulah moo leen amal journée santati borom daam ñu fas ko amal samedi le 22 mai 2021 ñu di ko amal ci quartier Kër Cheikh Abdoulaye Diop à partir de 20h ren di 7e édition bi ci ndigalul Serigne Khadim Lo gaydel borom daam ibnu Serigne Moustapha mu Serigne Modou Lo Issa di ko yëgal Ngom Rijal ak jëwriñam Serigne Modou Ngom sëriñ daawda mbàkke ibnu sëriñ murtada xaadim rasuul sëriñ basiiru mbàkke zubayru ibnu mam cerno birahim sëriñ abdou karim mbàkke ibnu sëriñ moodu faati xëri sëriñ moodu mbàkke sëriñ moustapha mbàkke kamal ibnu sëriñ mammoor masamba sëriñ xaadim faal sëriñ ahmed saloum dieng sëriñ baara siise bu sëriñ juga siise sëriñ medun sëy borom taw féex ak rakkam seexuna sëy sëriñ seyful xaadim cheikh bada ndiaye mouhamed samb soldaaru sëriñ touba sëriñ xaadim ba Serigne Khadim Gueye Cheikh Bou Diop Sirin Matar Touré mou Serigne Fallou Ndiaye Quran, Serigne Lemou Ndiaye Serigne Djili cheikh Moussa Sey ak Cheikh Cheikhouna Sey Bespinak, bi Parinelko, ñu jël ko parrainel ko nit ku baax ku Yalla nit ku nit nit bari valeur muy docteur Djibril Sar, président du mouvement Alliance pour une nouvelle direction invité d'honneur au bés bi nak mu jël ko def ko ki nga Ndiaye di ci le maire de la ville de Thiès monsieur Talla monsieur Faye Gaynde inspecteur trésor public président du mouvement alternative citoyenne and Moussé Moussé Habib président réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès Moussé Mohamed Diouf DG société Sirin Saliou opérateur économique Moussé Lamine Diagne homme d'affaires Moussé Baba Ndiaye homme d'affaires Moussé Mamadou Ning directeur Idecom Thiès Moussé Mamadou président regroupement des tailleurs de la région de Thiès ci walou nag mu jël bis bi mareneel ko surtout ma Massamba Mbacke bi soxna Mam Awa Mbacke Gaydel ibnu Serigne Mam Mor ma Massamba ci woo soxna Khady Fall bu Serigne Bara Fall soxna Seynabou Ndiégène madame Mbacké PCA soxna Marème Diop Sila soxna Assou Diouf AMS soxna Aïssatou Sow mu Serigne Saliou ñu ngi ci woo mbokk xarit am di jàmm ak dëkkandoor ak ay mbokki taalibeem yi mu bokkal kër Serigne Khadim Lo ci seen njiit Mor Talla ak jëwriñu section yi Serigne Ousseynou Gaydel fu section nekk ak fu cellule nekk di ci woo waa kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni yëpp rawatina ñi mu bokkal yoonu Mouride le 22 mai 2021